mbokk ji ne déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi sant yàlla doole sant yàlla bu baax waaye di santaat yàlla mu ñu may kàttan may ñi fekkee bi ndeelu si waa di dafa naani fajar di wa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daiman abada alhamdulilahi kasir amdala kulli halin ديجلسي النبي صلى الله عليه وسلم اكو اكرم الصحابه مي اكيبو كام يانغي تبي سنان الى يوم القيامه يا يالي يوني بوليسي يالي هي جام اندوكو فنانوكو يالي مي جام يوني بجام يوك سيتو يوك يوك كاتا يوك يوري فيبر نيكا جيكا غيني كاتا لو بيتام يالي مي عافيه يالي يالي بولي مي عافيه جيدو جيدو الله يلا يالي يرم لين يادل سين بامل ليرا سين بامل دف سين بامل ونك راود من رياض الجنه يبرو يالي سامري اردن يالي بولي دفي ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين mbokk julli naa fi si daaray Muhammad salaa sallam di jàngalekat ma boobu ba léegi ñu ngi waxtaane yàlla subhanahu wa taala li nga xam ne dig na ko jullit si gannaaw bi nga xam ne jaamu nañ ko e, toppan ndigalam yi bàyyi tereem yi yàlla di wa tamit melokaani jullit waaw jullit dëgga dëgga lan mooy melokaanam saay bu mu déggee aaya yàlla yi saay bu mu déggee alquran saay bu ñu yàlla subhanahu wax na yàlla lan laay def si moom lan laay loolu njeexteel bi lan lan lan la moo def si moom te yàlla subhaanahu wa taala tuliyat alayhim zaadatu imaana mooy juli dëgga dëgga saay bu déggoo dégge alquran dégga wax yàlla subhaanahu wa taala waaye tadabbur maanaam soo déggee alquran war ngaa mun a xam lan lay wax loolu nag wax yàlla boobu war a njeexteelam mooy ne yokk sa gom sa iman sa gum gum yoko waaw nek li yàlla subhanahu wa taala nga gis naka la bindé àddunaam yàlla subhanahu wa taala kéemtaan yi nga xamé def nako ci kaw suuf nga dégg ay ay alquran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab yàlla ne ute bi am yàlla subhanahu wa taala gannaaw nga xam bineen asamaan suuf ak guddi ak beccëk waye lolu nek ak kéemtaan yo xamné borom xéli la yàlla di wax la ayat maanaam ay kéemtaan la yu mag a mag a mag a mag xam ne li ulil albaab si borom xel yu ñaaw yi xam ne lii du neen lii du hasard lii nekkul lu jékki-jékki rek am am na ku koy ku ko amal mooy kan muy yàlla subhaanahu wa taala loolu sax su demee ba egg si xolli jaam bi gis asamaan si ko tiim suuf si moo doon nii ngelaw moo nokki lii yëpp yàlla subhaanahu wa taala defal ñu ko boobaa nag war ngaa mun a yokk sa gom yàlla war naa mun a yokku xam ne lii du lu loo xam ne doomi aadama mu ngi koy moo ko mën a defar da mu ne nag al imaanu yazidu wa yanqus yaam bi iqbaal wa adami iqbaal maanaam jublu si yàlla wala ñàkk a jublu si yàlla wa yazidu wa yanqus bima taarifu an illahi azza wa jalla fa kulli cheyin araftahu an illahi subhanahu wa taala fa huwa akbar min dalik maanaam gëm yàlla niki gëmam yàlla mu ngi yokku lim xam si yàlla te loo xam si yàlla rek xamal ne lu ëpp loolu mu ngi sa kanam lu ëpp loolu fa waaye dangay gën a làmbaatu dina déedéet lii moom yàlla subhanahu wa taala nekkul ne daf ko def pour neen wa hada min maani allahu akbar xam nga bokk na si e, miinin nga ne allahu akbar baat boobu nga wax noonu dara mënatu koo rëy dara mënatu waaw nit baat boobu yàlla rek moo ko yeloo allahu akbar amul kenn mun a màgga ba tollu yàlla subhanahu wa taala loo tamit nga dal di ko wax sa laami waaye fekk sa xol jël na ko xam nga lan la allahu akbar lan la si yàlla wax lan mooy maanaa allahu akbar maanaam yow xam rek yàlla ko ubba loo tax ñu ne cosaan bi yàlla moom rek a xam boppam yàlla moom rek moo xam boppam ñun doomi adama yaa xam naa yàlla ah kañ la yàlla santaane gis li yàlla defal si ay kéemtaan si loolu ngay xamee yàlla waaye yàlla subhanahu wa taala si cosaan moom rek moo xam boppam waaye nit ki ni ngay gën a góorgóorloo di fàttaliku yàlla di fàttale ko kéemtaani yàlla subhanahu wa taala di xawal mbindeef yàlla subhanahu wa taala dafay yokk sa gëm-gëm waaye di dafay digiral yow ne ku gëm yàlla nga ndik lan gis nga yàlla li mu def na ko wala li nga xam ne moom nga jàkkaar lool amul benn doomi adam bu ko mën a def ko du yàlla subhanahu wa taala loolu nag am njeexteel si yow ba sa ngëm mën a waaye nag yanqus qad yadaf imaana bi shubahaat waaye nit saa boo commencé di am ay sikki saaka si mbir yàlla rek xamal ne sa ngom mu ngay mu ngay wañe ko mu ngay yaxu waaw di gom ne waaw ndax li de ka naa waaw ndax yàlla bin asamaan bindu ko ndax yàlla bin suuf bindu ko li nak su demee bay nek ci xeli nit ki rek muy am sikki saka bu rek xamal ne ngomam mu ngay wañe ko bon yàlla ñu yàlla fa jàmm yàlla ñu yàlla ko suñu iman yàlla defal rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin